asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. gannaaw bu ñu santee yàlla sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Maulana xaadimu rasul ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen balu aq di balu aq ñépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mboolem njabootuk xaadimu rasuul ci nuyu tamit mboolem jullit yépp moo xam ñu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di sant yàlla sunu borom bu baax di ko kañ di ko màggal ci may gim ñu mayoon kàttan ak sañ-sañ ñu teew fii daaw mu mayaat ñu ko ren jii ñu koy sant bu baax a baax te di ko ñaan mu teewee lañu ko déwén te bu ànd ak man ak tal barakati xaadimu rasul ñu am mbégte bu baax a baax ñëwaat ci jataay bi ginnaaw bu ñu ndokkeelee Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndokkeel jullit yépp ci weeru ramadaan wi weeru tedd wi nga xam ne teru na di weeru ngëneel di weeru barke di weer woo xam ne dañ ciy ful jëf yi yàlla sunu borom may ñu kàttan te nangul ñu suñuy jëf te musal ñu ci bépp ndog xam ngeen ni nag daaira muxaddamatul xidma bi nga xam ne sëriñ bi bi nga xam ne moo fi nekkal borom liggéey bi di cheikhul xadim cheikh amadul muntaxa ñoom la jox ndigal ngir dénk leen lépp loo xam ne moo aju ci jumaa ji ci wàllu saytu entretien bi ak nekk fi ngir di saytu barab bi ngir ni ko sëriñ bi bëggee mu amee noonu ak ni ko lislaam santaane ci lépp loo xam ne moo fi méngoo ak barab bi ak li li fi méngoowul ñu dindi ko fi bokk na ci kenn ku nekk xam na diggante sëriñ bi di sëriñ Tuubaa ak weeru koor bokk na ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci ndigal loo xam ne yàgg na lool depuis 2005 ci ndigalu Cheikh Saliou Mbacké dañuy dundal weer wi fii ci ñaari anam ci dundal ko ci dundal ruu yi ci ay waxtaani diine ak dundal ko ci dundal jëmm yi ci ay bernde niñ koy faral di waxee ci ñi nga xam ne dañuy dàkk fii ci sëriñ bi ngir fas fi yéene doge seen koor muy lu ñu yaakaar barke loo xam ne lu wér la ndax jëf day baaxee na fu nekk waaye xam nañ ne fii dana fi sekkee ak ñi nga xam ne Eh, lottu nañ ci ngir ñëw di fi doge muy mbooloo mu bari daanaka di mat ñeenti junni nit ci bis bu nekk bu ñu koy xayma noonu tamit lañ ci ànd ak borom xam-xam yoo xam ne dañuy tànn ay tomb yu wuute yoo xam ne danañ ci laa laabiire bokk jullit yi ngir di fàttali ñi xamoon waaye di xamal ñi nga xam ne xamuñu woon ci fànn gu nekk incha allah mu war a am nag ci weer wi weeru ramadaan wépp ñu fas ko yéenee yi tey am nay waxtaan yu jàll yoo xam ne leeraloon nañ e, waxtaan yi niñ ko niñ ko tërale niñ ko tërale ci weer yi mooy am nañ fukki mawdo ak juróom-ñett maanaam fukki jataay yoo xam ne ay thème lay doon ay thèmes yoo xam ne day wuute waaye dañ koy dëppale ak xew-xewi jamono dañ koy dëppale ak jamono ji nga xam ne suñ ko waxtaanee nit ñi danañ ci gis seen bopp ci fànn gu nekk ci man cee yéwénal seen mbir mbiri àddina ak seen mbiri diine loolu fukk ak juróom-ñett lay doon mu am yoo xam ne ay ay duruus lañ koy wax muy ay bind yu ñuy jàngale yoo xam ne dañ koy jàngal dañ koy fàttali nit ki jàngal ko ko muy bindi yoo xam ne bindi fiq lay doon yoo xam ne eh, njàngaleem lislaam lay doon waaye lépp rek ñu koy balluloo ci njàngaleem sëriñ bi ci fi nga xam ne fi la sëriñ bi joxañ loolu it juróom-ñett dañ ko ci def yàlla dogal na sax tombu tey bii ci durus yooyu la bokk mu am tamit ñeenti fatawaa yoo xam ne ci semaine bu nekk dana am jataayu boo xam ne dañ ciy tontu ay laaj muy képp koo xam ne am nga laaju diine moo xam ñi teew jataay bi ak ñi fi teewul te di ko yónnee xam na ba lañoo jeexal danañ joxe numéro yi nga xam ne numéro yi nga xam ne ci la yónnee laaj yi képp koo xam ne nga ci sab laaj dañ la tontu fii ak euh, mufti yi nga xam ne ñoo fi nekk kon noonu lay doxee insha allah ci biir weeru koor gépp insha allah ni ki noonu tamit ni la ñuy nuyoo bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp te di ko jaaree ci MKTV wala CMTTV di seen boo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moo koy saytu nekk fii ci jumaa ji waaye ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci yeneen jumtuwaay yi mel ne Lamp Fall télévision ak mboolem site internet yi yi nga xam ne dañuy jël seen signal dañuy jël dañuy jël waxtaan yi ci surtout Muxaddamatul Xidma mooy ñu lëkkaloon yépp ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew tam yaatu lool ak rojo yi yi nga xam ne tamit ñi ngi koy jàllale direct mën nañ ci cité jant bi ak ceeñeer ak leer gi ak yeneen rajo yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko jàllale direct ak rajo bu mu mën a doon te ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen sant te di fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi incha allah kon loolu mooy li nga xam ne euh, moom lañ doon ubbee ñaareel bi mooy jublu nag ci waxtaan wi lan nañuy waxtaane tey ak ki koy def Euh, sëriñ Mamor Mbakke xam sa diine mooy def waxtaan wi tey jii di benn fan ci weeru koor ci atum 1444 ñu ngi waxtaane ak sawmu Ramadan ahkaamun wa asaar dañuy waxtaane lan mooy koor ak atte yi nga xam ne lislaam tëral na ko ci ak mbóot yi nga xam ne am na ko te tey jariñ ki koy def sëriñ bi tënkal nañu ko ci juróomi tomb incha allah dana jiital Euh, lan mooy soloy koor waxtaanal ñu ci ñaareelu tomb bi warugar yi nga xam ne euh, war na ci ki nga xam ne mooy woor incha allah ñetteel bi mooy atte yi nga xam ne mooy attey koor ci boppam yi nga xam ne mënu cee ñàkk ci ku koy def ñeenteel bi mooy mbóot yi nga xam ne koor am na ko walla njariñ yi nga xam ne dana ko jariñ bi ci njariñul saayir ak baatin waaw kon su ko defee incha allah sëriñ Mamor mooy def waxtaan wi noonu moom la ñuy jébbal kàddu gi su jeexalee nag xam ngeen ne liggéey bi ni ñu ko waxee léegi ci tàmbali bi Cheikh Mamadou Mountakha daf koo fonk lool ci anam yu bari ba dafiy yabal ay kilifa ngir ñu ñëw ubbi jataay bi Cheikh Mahamadul Xabbaan mu Cheikh Mahamadul Fadal dana fi teew ànd ak doomam sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu jataay bi su ko defee suñ noppee dinañ yëkkati kàddu yu bàyyikoo ci sëriñ bi muy kàddu yi dénkaane ak kàddu yu ñaax kon dañuy jébbal kàddu gi sëriñ mu jublu ci waxtaan wi sëriñ Mamor bisimilah. bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala al ghurri al wa ala xayri xadimihi dil xablil matin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk jëli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne tàbbi nañu ci tey di shahru ramadan al mubarak weeru barke weeru ngëndeel weeru xéewal weeru lépp lu baax noo ci ndokkeel ñëpp di ci jiital sëriñ Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi fi nekk Serigne Touba di ñaan suñ borom mu bàyyil nu ko fi mu yàgg fi lool te wér lool lim naa la sëñ Tuubaa lépp sotti coleet ci loxoom te lépp ñu ko moom nuyoo bi ñu koy nuyoo ndokkeel gi seer bi yëpp ñu teg ko ci loxol kenn ci njabootam teew fii teew ci ndigalam sëñ Cheikh Ahmadou Khadim Mbacke moom si am moom sëñ Muntaxa nekk ci suñ càmmoñ ñu koy nuyu baax baax di nuyu boppam di ko ndokkeel ci turu daayira Muxaddamatul Xidma li nuyu bokk yi ñu teewlu yëpp fu ñu mën nekk ni ko Seydou Lahad waxee tomb bi ñu tànn fas ko yéene waxtaan tomb la bu am solo muy sawmu ramadaana ahkaamun wa asraar woor weeru koor ak li mu am làmboo ci ay àtte ak i mbóot xam nañ borom bi tabaaraka wa taala suñu borom dafa yoonal koor ngir ay njariñ yu bare bare bare bare yu mu làmboo ak i mbóot yu màgg yoo xam ne xalima yi bulaxaa u yi eh, yut na ci lu bare bare bare bare waaye xalaati boroom xam-xam yi ak xukamaa yi ñoom dem nañ ba gëlin ci ngir bari gum bari te mënuñu koo jaxal bana subhaanahu wa taala itam dénk wala làmbaaye koor ay xikam ak i mbóot ak i njariñi àdduna yuy alaxira yoo xam ne su fekkoon bakkanu ki yoor xam na lam la ca nekk mooy mën na koo gis xelam dañ na ko la ca nekk ci yool bu màgg ak pay gu rëy dana ko jural mbégte mu rëy rëy rëy te dana mbébétit weeru yëpp dana mbébét at mépp doonoon koor suñ xamoon la ca nekk dañ mbébét at mépp doon koor nga lam cay dund ci ruuxam ak rayxaanam kon kuy wax ci maw doom mel nii rek tomb bu mel nii day wax rek ci kemt layal fa xalaatam àgg ak fa ca xelam toll waaye lu yaatu loolu mënee su ko jaxal ci benn jataay mënee su ko mënee su ko eh, matal lépp itam koor nag wasila la mën na aw yoon la wa màgg wuy mën a jur ak ragal yàlla ci ko koy def te ragal yàlla nag ci la mboolem njariñu àddina yu àllaaxira yëpp daje ndax li suñu borom wax ci la yoon saa soo nettali ne suñu borom nee na kullu xasanatin bi ashri amthaliha ila sam'ati mi'ati di'f bépp jëf bu ab julli jëf ci lu baax dañ ko ful ba muy fukk suñu borom ci coobareem nag mën na koo ful ba muy juróom-ñaar téeméeri fulandi mbaa sax moo fukk suñu borom waxaat ci benn xadis ku jëf yi doom jëf jëf yi doomu aadama ju nekk doomu aadama baa ko moom nit lu mu jëf moo ko moom ba mu des koor fa innahu li wa ana ajzi bi koor moom maa ko moom tamaa ko sama bopp waaw bu ñu xoolee ne suñ borom askane bi teral gim teral ko ci askane ko boppam te donte jaamu yàlla yépp moo ko moom waaye koor la ci moomale bopp ne maa ko moom noonu la teral itam baytullahi alxaram askane ko boppam te suuf sépp yàlla ko moom waaye bu ca tànnee koor nag jagleel ko boppam askane ko boppam ngeen ñaari maanaa moo ko waral ba ci njëkk mooy koor ñaari yëf rekk la mooy kafun wa tark koor ñaar rek la mooy fegu ak bàyyi moom ci bopp moom koor ci bopp ñu itam di mbóot mën a jëfi biir la joo xam ne amul jëf ju ñu jàkkaar lool jëf ju ni kii jëf ñu ne kii kat jëfam ji jëfi la xam nga kii julli da nga gis jëf yu jëf mbóot leen kii day julli ko joxe asaka daa am lu mu def nga xam ne kii day natt asaka ka xaj màkk am na jëf yoo xam ne kii day xaj màkk waaye koor nag amul jenn jëf ju ñu jàkkaarloo joo xam jëf ji nga xam ne lii jëfi koor la kon mbirum biir la kon jëf la jooju kenn du ko jëf yàlla rek mooy ku ko gis koo niwul damaa woor doo ne dangaa woor kon jëfi baatin la joo ne dafa làmboo muñ kese kese kese ba ko ñaareel mooy jumtukaayu notukaayu noonu bi yàlla bi la azza wa jalla ndax yooni seytaane yal na ko yàlla dolli rëbbu yoo ay yoonam ci nit mooy bànneex yi te nag liy dëgëral bànneex yi mooy lekk ak naan moo tax yonent bi saa sam waxoon ne inna seytaane yajri min ibni aadama majarat dam seytaan dafay daw ci biir doomu aadama ni deretam di daw ci moom kon koor nag bu fekkee dafa jagoo nag loolu mu jagoo kon dafay nekk nottukaayu seytaane di mëdd aw yoonam waaye di xatal nag ay jaarwaay yu muy jaar mbay mën a jaxase nit ak di ko jax-jaxal ci loolu nag la kon la la yaayoo jagoo askani ko sunu borom askane boppam tabaraka la mu taxaw nag ci kaw dimbali yàlla euh, ci ci not gi muy not nottu yàlla boobu ci lay dimbale yàlla waaye dimbale yàlla ko ci lay taxaw ci kaw ndimbalal yàlla lu mu koy dimbale moo li suma di wax ne in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ca kam xam naa nañ mën a dégg nag dimbale yàlla su ngeen dimbalee yàlla yàlla dimbali leen te dana dëgëral seen tànk dana leen dana leen may kàtt dana leen dëgëral kon nag njëlbéen gi mooy farlu jaam bi ànd ak nag ñaareel ba nag mooy payug yàlla ci gindi gum koy gindi defal ko hidaaya ci loolu muy muy muy jéem mooy ndi su fekkee dafa jéem ba fa kàttanam yam lajares na yàllaa ko jàppal tànkam àggale ko ci la munta àgg wala si jaaxadoo fii na leen di suba la naa ñi nga xam dañoo góorlu def lañ man lépp e, ngir jëm ci nun yàlla noonu jàppal seen tànk dëgëral leen dafa leen hidaayatu ba bañ bañ bañ àgg fa leen tax a jóg nit ki li fekk ma ngay teg tànkam foofu yàlla yàlla nekk ndimbalam li koy dimbale di ko dëgëral waaye saabu bu soppi ko saabu bu uh, ndimbal suñu doon soppi ko rek na xam ne kon moom moo soppi ko ndax yàlla du soppi la ne fi aw nit lu may ñoom ñoo soppi seen bopp yen la laa yoxe ma bi xam in xataa yoxe ma kon li fee ngi sax ci njub googu jëm sa kàttan la nga lépp rek yàlla sax ji dee dimbale mel ni kon nag soppi ko googu nag mooy baril ay bànneex te bànneex mooy euh, forukaayu seytaan mooy tooli seytaane mooy dox mooy barab ba muy doxantoo mooy bànneexi doomu aadama kon li fekk bànneex yi mi lu mu gën a naat rek taraddut di gën a mën a am li fekk ñi ngi sax di nekk ci taraddut itam jaam bi màggu yàlla du mës wuñ wuññiku ci ab xolam mukk ku ñuy yiir lay doon ci daje borom subhaanahu wa taala ci anam googu na la nekki kon buntub jaamu yàlla nekk itam pakk bu koy fekk ci lépp lu du noona su fekkee ne ngëneelam màgge na noonu màgge nag ba àgg ci dayu bi kon mënta ñàkk kon ñu leeral na kon ay charti zahiram mooy charte yi nga xam ne yu feeñ la yu ñu xam ci tudd ay arkaanam ak i sunanam mooy ponk yeeg sunna yi ak la ci aju ci ñoom ñaar ak sarti baatinam ak la mu làmboo kon loolu mooy waxtaan wi bu dee waajaba waajaba zahiri yeey warugar yi nga xam ne yu feeñ la juróom benn la ba ci njëkk mooy njëkk a fuglu njaal beenug ramadaan ci séentu weer ba gis ko gis weer mbaa ñu gisal la ko kon benn gis ko ci seetu bu njëkk ci Shaaban mbaa ñu matal Shaaban fanweer su fekkente ne dafa lëndëm ba gisuñu ko des su bu gis ko nag mooy xam ko rek donte keneen da koo gis nga xam ne feeñ na atteb gis la waaye bu dee feeñu weer koor may sa co tegtaloo ci ñaar ñu maandu kenn ko maandu sax kenn na ko des na ci sukkandiku waaye bu doon kori nag moom faaw ñaar ñu maandu ci li ñuy sukkandiku ngir ixtiyaat ibaade gi ba ko ñaareel mooy yéene yéene nag barabam mooy xol dañ ci desuwaat bu ñëwee ci àtte yi ñetteel mooy jàpp ci lépp lu mën a àgg ci biirum nit ki ànd ak fàttali koor waxtu yi nga koy def te tay ko ba ko ñeenteel mooy jàpp ci sëy man a téye sa bopp ci sëy boo ko juróomeel mooy téye sa bopp ci génne ma ni yu moo xam ne yaa ko sabablu tam génn nga xam ne ak jublu la ànd ak ba bànneex ba baaxu àndal ba ko juróom beneen mooy jàpp ci génne am wàccu moo xam ne yaa ko sabablu yooyu tënk la waaye dañ ci desuwaat ci axkaam yi ci gën koo leeral bu dee sunna yi dañ ci ñëw ci kanam waaye axkaam yi ay at ay attey koor la ci jitu mooy lan mooy koor koor ci tënk mooy bàyyi ñaari bànneex mooy bànneexu biir ak bànneexu pëy li dal yi fenku fajar ba ci soog jant te julli ci jaam yàlla bu doon tënk koor ci tënk bu gàtt mooy loolu <coughs> mooy bàyyi bànneex biir ak yooyu pëy li daal ci fenk fajar ba jant so te jublu ca jaamu yàlla soo ko bàyyi woon te jubluwoo ca dara doo ci jële dara boo tekki dara kon yéene foofu la amee njariñ ana kan la war mooy ab julit bu doon mu kàllaf wax ne jot na gént te amum xel te jot ci woote lislaam lu may dafa am ngànt ñu déggee ci lool nekkoon koor warul xale xale bi jotagul gént wëru ko waaye su wooree teewul koor ga dana wér wërul ku tàggoo kom xelam ku ñuy tuddee ab dof ak teqali kom xelal xelam teqali ko ne moo ko teg boppam moo def lu ko teqali kom xel moo def lu tag lu ko tàggale sagom koo ca waxtu woowee koor waru ko su wooree wala bu ko waree bu ko waree bu wooree koor ga du wér ki ànd ko xelam moo xam moo ko sabalu moo xam sabalu ko su wooree koor ga du wér koor it warul koo xam ne woote lislaam ak siwut ci moom it tey def naa lool moom jamono weesu na ko kon dund na ba faatu mu yëgul ne am na yonent bu wàcc bu tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yëgul ne suñu borom wàcceen téere bu tudd alxuraan yëgul ne daal diine yi tuddee am na ba faatu kooku yàlla topp ko dara ndax suñu borom wa maa kunna mu'adhibiina hattaa nab'atha rasuula bala maa mbugal kenn da fekk sama ndaw njëw ci moom ba àggal sama woote ci moom kon kii jotul ci watu yént bi te loolu defe naa jamono wees na ko léegi ñëpp jot nañ ci warul it jigéen ji gis ngànt moo xam nganti mbërëg la ñu di ko wax baax wala nganti gësin la muy deritam doom ku ci ne ci ñoom ñaar su wooree koor gu du wér woor sax day xaram ci moom jël ci abi saydin xudri yi yal na ko yàlla gërëm wax ne yonent bi salaa sallam nee na alaysa isa lam tusalli wa tasum xanaa du ne su jigéen gisee baax du julli te du woor kon du woor waaye koor ga da koy fay du julli waaye julli ga moom du ko fay nganti koor yan ngànt yi nga xam ne kum gaar sañ ngaa bañ a woor te doo ci am mooy wéradi gu tar ki wéradi wéradi gu tar goo xam ne mënut a ànd ak woor su wooree dana ko jural jafe-jafe am na ngàntul dog dog ci kaw bu fekkee doktoor bu doon ab julit bu am xam-xam eh, moo ko xamal ne te wóoroo woor boo wooree kat dana la jural jafe-jafe sàngam wala daa dolli seg wéri di wala daa tax yéex wér ba am na sañ-sañu dog ngir loola ba ko ñaareel mooy tukki tukki boo xam ne mën na masaafatul xasr tukki bi an sañes na ca wàññi julli te mooy tukki ne dem bi rek mat na juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar kookee am na sañ-sañu bañ a woor ni mu amee sañ-sañu wàññi ay julleem ndax tukki bu gudd ñaari du ñàkk ab coono am ca waaye coono ba nag bari coono ba ak néew coono ba nag mi ngi aju mi ngi aju ci situation kii tukki rek nu mu ak donte tukki bi amul lorit amul sañ-sañu am na sañ-sañu ndog ñaar yooyu benn aaya leen tegtale faman kaana minkum mariidan aw alaa safarin fa iddatun min ayyaamin ukhar suñu borom nee na képp ku wéri di ci yéen wala mu tukki mën naa jàppale idda kooram googee ba ci yeneen bis waaye su fekkente tukki ba nag amul benn coona amul benn fitna du cee yëg benn coona su boobaa su wooree nag koor ga mooy doon am na sañ-sañu dog waaye su wooree koor gaa gën nag ndax la suñu ban wa an tasuumu xayrul lakum su ngeen wooroon day moo gën ci yéen ak xadis bi soxna Aysa solo yal na ko yàlla gërëm mu ne Xamsata bni Amrin al Aslami yi dafa yónni bi saa ne ko yaa rasulallah te fekk da dafa dekkoon ko bari lu muy war a asuumu fi safar ndax su ma tukkee damay war mu tontu ko ne ko in shita fa sum wa in shita fa aftir kon yi déggoon kon booy tukki kon bu la neexee nga wor bu la neexee nga dog ba ko ñetteel ci ngàntikoor yi mooy jigéen ji toll fenn jigéen ji toll fenn am na sañ-sañu dog ci kaw su fekkee dafa ragal lor ci jëmmam mbaa mu ragal lor ci li mu àndal am na sañ-sañu dog bu jàllee mu fay ba ko ñenteel ci ngànt yi mooy kii nàmpal daganal daganal ci daganal nañ ci moom mu dog fekkee ragal na lor ci boppam mbaa ki muy nàmpal fekkee doom ji muy nàmp ji muy nàmp féeregut te mën a gute lekk wala nangul ko yaayam kon daal ngante yu bare bare kon su wooree dana ko wala su wooree sax doo am lu doom ji nàmp kon su booba am na sañ-sañu dog waaye buy fay na da koy booleek joxe mudd ni ko noonu eh, yun sa xadis bi ko teg dama léegi yun sa waxoon ne inna allaha wadaa anil musaafiri chatra solaati wa anil musaafiri wal xaamili wal murdan as sawm yàlla wàññil na kii tukki xaaju julleem ci julli rakka yi waaye teggil na kii tukki ak kii ëmb ak kii nàmpal koor ba ko juróomeel mooy kibaru sinni mooy ki nga xam dafa àgg ci mage ba yaram mu ëtt na tut koor kooka am na sañ-sañu dog tey lele bis set mu jox miskin ëmmut su ko amee su ko amul nag ñaari yëpp wàcc na ko su amul lu mu joxe koor wàcc na ko joxe nga wàcc na ko ngeen xaalis bi am laa ibn abbas solo wax ne ruqisa li shaykhil kabiri an yaftura wa yatama an kulli yawmin miskinan wala xada alayhi bu dee farata nag koor ñaari farata rek ba ci njëkk mooy yéene ak jàpp ci mboolem yi dokkoor bisul lëmm li daal ci fenkook fajar ba ci soog jant ndax suñu borom moo ne lekk leen naan leen ba leeruk fajar gi fees ci lëndëmu guddi gi ay xaytul ab xaytul aswad julu ci ay wëñ waaye jim xaytul abyad mooy leeruk bëccëg bi xaytul aswad mooy lëndëmu guddi gi waaye léegi nag xëy na yooyu bañ cay tegtal boobu moom tër amagut waaye léegi jumtukaay yi mën a xamee waxtu bari na sartu na ci koor yéene ju jonjoo ak moom ni nga xamee ne yeneen jëf yëpp yéene ja day jonjoog jëf ja su dee njàpp yaa ngi yéene ci farata bi njëkk jàpp njàpp muy sëlmu su dee leneen su dee julli yaa ngi yéene ci bi ngay kabar kabaru xarmal jëf ju nekk yéene ja ak jëf ja day jonjo ba mu des koor koor moom yéene ji ak jëf ji mën nañu bañ a jonjo bi bi neweer bi feeñ na rek ku ne sañ ngaa fase foofu sa koor pas-pas boobu daana la ci weer wi lépp man ko bañ a yasal lu may da dem ba am ngànt dog soo dogee booy tàmbaloo da ngay yéene waat waaye su fekkee li fekk dogo moom yéene ju njëkk ji mooy wéy waaye bu dee ci malike dañu sopp nag bis bu bis set nga yen nga beral ko yéene boppam dañ ko sopp rek waaye yéene ju njëkk ja doyoon na ci weer yépp ba tey xëdd it mën naa wutu yéene xëdd mën naa wutu yéene ndax yéene jëfi xol la te ki xëdd day tekkal ne ka am na pas-pas woor moo tax kon xëdd mën a tax taxawaayu taxawaayu euh, taxawaayu yéene yéene ji nag dañ ca sàtt mu jiitu fajar na jiitu fajar kon waxtoom mooy guddi gi lépp la dale ci jant bu so ba ci fenku fajar diggante bépp barabu yéene la salaas neew na man lam yaj man lam yaj ma siyaama xablal fajar fala siyaama la ku yéenewul li jiitu fajar amul koor kon da dem ba bës seet mosugoo dara nga ne a ah naafar woor rek koor googu du wér kon yéen ji faaw day jiitu fajar bu faratam ñaareel bi mooy imsaaku anis mooy téye sa bopp ci mboolem yi dog koor tegtal mooy wukku la wasa boo jëm waxoon léegi lekk leen naan leen ba keroo lëndama guddi gi di feeñ leeru fajar gi di feeñ ci lëndama guddi gi moom la Sëriñ Tuubaa di wax ne siyaamuna lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani niyatuna wa kafuna an muftaraat li wa ci baaxin mutaimin bi tayibaat bu dee sunnay ñett rekk la mooy xëdd sunna la buxaari yu ak muslim ko ci soloon jële ana sunu maali wax ne din saasu nee na tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd barke ngi ci sopp nañ na yeexe ko yeexe ko ba ci mujj guddi gi saxaaba yi dañ daan bàyyi ba nga xam ne li des ci jàpp jàng juróom fukki ay ñoo fa xaj ñu door xëdd jàng juróom fukki nag mën nañu ko natt ci juróomi minute Buxaari um su ko ci sol na xadis boobu ba ko ñaare mooy teel a dog ci bu leeree ni jant sona salaasam nee na laa yazaalu nnaasu bi xayrin ma ajjalul fitra nit ñi duñ dañ di ci aw yiw li fekk ñi ngi teel a dog bu jant soya ba xay amusi ko ci solo na ko ci beneen xadis boo xam ne du Buxaari ak Muslim wax ne laa tasal umati bi xayrin maa ajjalu fitra wa sama xeet duñ dañ di ne ci aw yiw li fekk ñi ngi teel dog di yéex a xëdd jëliñ ci Abi Hurayra ba tey wax ne yéen saa sallam nee na suñ borom nee na inna ahabba ibadi ajalahum fitra ki ma gënal ci samay jaam ñi ma gënal ci samay jaam mooy ñi ciy gën a teel a dog su jant soye ba ko ñetteel mooy néewal ay wax wax ju dagan wax ju dagan nga néewal ko wax ju xaraam moom daa wax ju dagan nga néewal ko bokk ci sunnay koor kaful lisaan fekk saw làmmiñ ci ay neen wax ju ñaaw ak wax ju amul njariñ loolu la Sëñ Tuubaa ne masnuunuhu thalathatun inda allabib taajilun alfutura min baadi alxurub wa thani taxiru soxoori layla thaalisuha kafu lisaani qawla bu dee yàq koor mooy lekk ak naan ci tay wala njuumte lekk naan moo xam yaa ko tey moo xam ne day yàqu koor bokk na ca sëy dafa yàqu koor bokk na ci génne ma nii yu moo xam ne yaa ko sabablu day yàqu koor àggug dara ci sa biir ak fu mën a jaar day yàqu koor lépp lu àgg cig bëli cig bëli tey lu nooy ndox wala meew wala ëbruy lépp loo xam ne lu yolom la su àggee ci bëli ga yàq na koor ga su dee lu dëgër nag da koy romb door ko mën a yàq fekkoon dafa am lu dem ci sa bëli lu dëgër nga fexe ba génn war ko lu mel ne xooxu bëy wala yu mel noonu soit sa koor yàquut Euh, bokk na ci itam tux kii tux tux day yàq koor banatu xet gu am doole lool xet gu am doole nga banati ko dafa yàq koor saxaarus cuuraay su la duggee day yàq koor waa bu dee saxaarus mat nag moom yàqul koor saxaar bokk na ci itam rotal sa yéene jékki-jékki amutoo yéene koor toog yàgg jékki-jékki amutoo yéene koor donte lekkoo naanu sa koor yàqu na bokk na ci itam looju mooy wàcc moo xam ne yaa ko sabablu yàqul koor da yàqu koor waaye bu dee nag koor mu la bu dee wàcc mu la noot moom ñëw yàqul koor waaye su fekkee yaa ko sabablu da yàqu koor ga ku jëf benn ci yii ma tudd su ko tayee fay war na ko kafaara war na ko su ko teyul nag fay rekk moo koy war bu dee yi ñu sopp ci koor yu bari la dog ci tàndarma ci la bokk ndax li yontu saa sam waxoon ne ita aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu baraka ku ciy dog yéen na doge tàndarma ndax am na barke fi salim fi salim yi tamran fal ma fi innahu taxur su amul tàndarma na doge ndox ndax ndox lu laab la bokk na ci dem su fekkee dafa julli bi dafa doge tàndarma mu def ko lu tool benn ñett juróom juróom-ñaar ndax yàlla dafa tóol te dafa bëgg lu tóol inna laaha witrun yuhibbul witra mbokk ni ñaan ci waxtu dog soo dogee nga ñaan bañ a sàggan ci ñaan ak tàgg yàlla ci kam daal ni mu ko yeyoo sant xéewalam ci teggil gi mu la teggil coono ba noppi na yool ba des fa nekk yool bu màgg màgg bu mu lay dencee mu di la xar ëllëg allah nu abbas ne woon na salaasum mu sàndoog day wax ne allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiul alim Tabarani boo ko solo waaye Sëñ Tuubaa am na ñaan gu mu indil moom xam na li man aane dafa suntu bayit jeex bayit yu néew la yoo xam ne ñaan gu am solo xam ne jéggalu yàlla yu am solo moo ci nekk kon war na ko fexe mbokkal saa boo dogee jàngo salaasan su saan dog Abdoulaye Noor neen daana wax ne dahabat zama wabtalatil aruq wa thabatal ajru insha allah mooy marwa dem na ñaq wa fendi na te bi des na fi incha allah kon ma te sant yàlla bokk na ñuy sopp ci koor itam bari ci jàmm yàlla bari looy sarxe rafetal jëm ci say jegeñaale ak jirim yi ak miskin yi jokk ci ak bokk defar ci diggante ak jépp jëf yiw ju mën a doon rek bokk ci taraawix yi muy naafil yi ñuy def ci ci jàkk yu jumaa yi ci guddi gi am na may may yu rëy rëy rëy yu ci nekk yoo xam ne ëppale na ko yeneen weer yi ci des yëpp sallallahu alayhi wa nee na man xaama ramadaana imaana wati saba xufira lahu ma taqaddama min bi képp ko taxaw di naafile ci koor gi te gëm yàlla lal ko def na ko jéggal li jiitoon lépp cay ay bakkaaram li antikaaf ci ci sopp la bokk filancil awaaxir fukki yu mujj yi nga di ko féete ci jàkka ngën jaa néewam mooy 24 heures ngën yàgg mooy fukki fan mooy fukki fan yu mujj ci koor gi bokk na ci bari loo ci jàng alxuraan lool ak yeneen ak yeneen yeneen mustaxabaat mooy suti limeef yu bare bare bari lépp lu baax rek bu dee yi ñu sib ci koor mooy ñaw ñam aw ñam ñam dara yàbbiwaat ko yàqul ko waaye sib nañ ko baril ci ay wax donte wax ju dagan la bari cay wax dañ ko sib def garab ci sa gémmiñ te ngante waralu ko dañ koy sib jëfandikoo pâte firis dañ ko sib su ca dara rëcce jàll nag da yàq koor ga bokk na ci itam lañ ca sib muy fo ak lépp lu amul njariñ ci wax ak ci jëf ak waxi bébbant salaas nee na képp ku bàyyiwul jëf yi neen ak waxi neen yàlla amul soxla ci mu bàyyi ci mu bàyyi lekkamu naanam mooy yàlla amul soxla ci korom bu dee yi ca daggan nga xam ne mën nga ko def te du yàq koor dagan na nit ki fegal boppam aw tàngoor su ko neexee taal kilimam yendu ca su ko neexee sotti ndox mu sedd ca boppam wala mu sangoo ko wala mu galax ni ko wala mu sarax ni tamit ko soril bu ñu jumhurul fuqaha yépp dëppoo nañ ci loolu eh, kenn ci eh, Abdurahman Abdurahman Abi Bakar dafa wax ne kenn ci saaba yoon sa ma na waxtaan ma ci bokk na ci lam ma wax ne ma laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasubbu ala rasihi lma wa a saim min al atashi aw il xarur ne gis naa yoon saas muy sotti ndox ci boppam te booba dafa woor dama xamul nag aw mara ko waral wala tàngoor ci lañ gis ne kon loolu dagan na ba ko ñaari mooy dagan na it nit ki xëyee jana ba xëyee jana janaba maanaam ki def luy waral sangu ci guddi gi dem ba set sanguut yàqul koor ga waaye nag am na bàkkaar bàkkaar mooy dañ xam ne kon kooku julliwut suba ñàkk a julli suba kon mooy bàkkaar ba waaye xëye ga nga xëye janaba janaba ji yàqul dara ca koor ga dagan na it lépp luñ munta moytandi moytandikoo dafa ngelaw poussière bi solo la yàqul sa koor da nga yor wal di wal sunguf si dinaaw di la solu yàqul sa koor eh, ni ko noonu saxar su matt jigéen ji ne ci waañ wi di togg saxar su matt dugg dugg ko du yàqu koor waaye cóolaleel ci nag su ko duggee dana yàqu koor moom ko lor yi nga xam ne mooy ci sa di ko wan na yàqul koor wan na say lor yàqul it socc ci bëccëg bi yépp ci sàdd na nga bañ caa taqal dara lu am caf ko lu mën a àgg ci boli ga ndax li saa soo xam ne la wala an ashuqa la amatum bi siwaaki inda kulli salaatin su du war bañ a sonal sama xeet naa leen digal ñuy socc waxtu julli wu nekk kon ñëw nag ci lenn ci asraar yi ak charti baatin yi ci koor ñu xam ne koor ni ko imaam imaamul Xasaali waxee ñetti daraja la am am lu ñu tudde sawmul umum ak lu ñu tudde sawmul xusuus ak lu ñu tudde sawmu xusuusil xusuus su ma ko doon firi ci wolof sàmmunu umam mën naa ko firee koorug ñépp koorug ñépp sawmul xusuus koorug ñennat sawmu xusuusul xusuus koorug ñennati ñennat bu dee sawmul umam bi nga xam ne mooy koorug ñépp mooy koor gi ñépp xam rek mooy fekk biir bi ba doo lekk doo naan fekk pay mi ba doo sëy loolu ñëpp a ko man moo dañu ne kon koor gi ñëpp mooy koor xen ñëpp mooy mooy koor amatu naas yi ñëpp a ko man wala ñëpp ko man loolu mooy sawmul umum bu dee sawmul xusuus nag mooy koor ñenn mooy fekk say nopp ci déglu lu xaraam fekk say bët ci xool xaraam fekk saw làmmiñ ci wax lu xaraam fekk sab loxo ci jëf wala laal lu xaraam fepp say tànk ci dox jëm ci lu xaraam ak mboolem cër yépp nag ci lépp luy jur bakkar luy jur bakkar nga moytu ko ca koor ga ba ci cër yi ba nga war a loolu mooy sawmul xusuus bu dee sawmu xusuusil xusuus kooruk ñennati ñenn nag mooy kooruk xol bi kooruk xol nga xam ne mboolem xalaat yu suufe yi ci xalaati àdduna ak la ci aju nga fekk ko ci xol bi lu dul jëm yàlla nga xam ne sa xol dara lu dul yàlla du ca nekk ci sa lépp nag loolu mooy dara ja yonent yi ak siddixuna yi ak muqarrabuna yi ñu àgg foofa loolu du jar guddal ci ci tafsil yi waaye ci tax ki xam ci dëgg dëggandal ci jëf mooy jublu yàlla bi kun hil himmati àlallahi azza wa jalla mooy sa sa sa dëgg sa dëgg dëgg yitte lépp nga jëmale ko ci yàlla doo geesu àddina doo ko xool doo ko bàyyi xel wan gannaaw lépp lu dul yàlla melokaanoo maanaam li sum doon wax ne xulillah thumma darhum fi xawdihim yalabuun yow muhammad waxal ne yàlla rekk a fi nekk moo wàcce téere yi wàcce yépp yàlla moom rek lañu war a jàmm soo leen waxee li ngeen a war a wax ne léegi bàyyi leen ñu ci seenum po rek ba kere ñu dajeek seen borom kon bu dee sawmul xusuus mooy sawmu saalixiin sawmul xusuus mooy saw kooru ñanat mooy koor gaa yu baax yi te mooy kaful jawaarix anil aathaam fekk say cër ci lépp luy jur bakkaar waaye mi ngi mate nag ci juróom benn yëf sawmul xusuus juróom benn yëf lay mate ba njëkk mooy xaddul basor damm sa gis fekk ko ci lépp loo xam ne mën a ci yaatal sab xool ci lépp lu ñu ŋàññe moo xam lu xaram la mbaa lu ñu sib nga bañ koo xol ak lépp li soxlaal xol bi ba tee ko bàyyi xel yàlla nga fekk sa bët ba ko ñaareel waaleykum salaam mooy xifdul fekk saw làmmiñ ci waxi bébbant moytu fen ak jëw ak rambaaj ak wax ju ñaaw ak bécci ngeeni nit ak xuloo ak werante ak yu mel noonu waaye taqale ko ak noppi taqale ko ak noppi waaye soxlaal ko rek tudd yàlla ak jàng alquran loolu mooy kooruk làmmiñ sufiyaan nee na alxiibatu tufsidu sawm jëw dafa yàq koor jëw dafa yàqu koor lay soloon jële ci mujaahid mu wax ne xislataani yufsidaani sawm al xiibatu wal ñaari jikko dañuy yàq koor ñaari yëf dañuy yàq koor muy fen ak jëw salaasam nee na assiyaamu junnatun fa idaa kaana ahadukum saa'iman falaa yajhal walaa yarfus fa in imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul inni saa'imun inni saa'im nee na koor pakk la buy fekk nit ci lépp lu du noona képp ci yéen ku woor bu mu jàll kenn bu mu wax lu ñaaw bu mu ko def su nit ñëwee ci moom di wuta xeeta xeexa moom mbaa muy wut a xulo moom ne ko ne man daal damaa woor man daal damaa woor mu taxoon ali ba ko ñetteel <clears throat> ci tax sawmul xusuus mat mooy fekk say nopp ci déglu lépp lu ñu sib mbaam muy lu xaraam ñu xam ne lépp lu araama wax araam naa déglu lépp lu araama wax lépp loo xam ne wax ko dafa araam déglu ko it dafa xaraam moo tax suñu borom yamale déglu déglu lu xaraam mu yamale ko lekk ger sàmmaauna lil kadibi akaaluuna li soxt yahud yi lay wax dañuy déglu lu ñaaw waaye dañuy le lekkikati ger lañu déglukati lu ñaaw lañu waaye lekkkati ger lañu sàmmaauna lil kadibi akaaluuna li soxtu su ma waxaat ne lawlaa yanhaahum rabbaaniyuuna wal ahbaaru an xalumul isma wa aklimu soxta la bii sama kano yasnaun bu fekkoon nee na seen kilifa yi ar rabbaaniyuun mooy kilifa mooy kilifa nasaraan yi al ahbaar mooy kilifa yahud yi mu ne su fekkonte ne ñoom kilifa yooyee bu doon jamono ma nga xam mooy boroom xam-xam yi rek tere woon nañ leen ñoom nit ñi ca ga ñuy wax luy jur bàkkaar ak lekk ga ñuy lekk ñàkk gañ ko ñàkk def de ñaaw na lool lañu def ñoom ahbaar yooyu ak rabbaani yoon yi kon noppi ci jëw lu xaraam la déglu ko innakum idan mithlahum léegi daal yam ak ñoom kon ña koy wax ña koy déglu ñooyam képp ba ko ñette ci lay tax euh, ci li tax sawmul xusuus mat mooy fekk nag cër yi ci des yépp ci luy jur bàkkaar muy loxo bi muy tànk yi ci lépp lu ñu sëbale mooy lu xaram fekk biir bi ci subaha waxuma lu xaram waaye lu lënt rek ca waxtu dog koor day mel ne dootu am maanaa su fekkente ne feg feggu nga ci lu dagan ci bëccëg a feggu nga ci lekk lu dagan xam nga bëccëg bi lekk daganoon na ci yow léegi feggu nga ci lekk lu dagan ci bëccëg bi ba ne ngoon nga doge lu xaraam xam nga ci bëccëg bi feggu nga ci lekk lu lew mooy woor nga jant so nga doge lu xaraam <laughs> su boobaa misaalam mi ngi mel ni ku tabax ab pale màbb ab dëkk tabax pale màbb dëkkub lëm mooy loolu mooy feg fegu nga ci lekk lu lew ci bëccëg bi ba ngoon nga doge lu xaram saa bu jegee jëm ci ndax mi ngi mel ni eh, ku am ñam bu baax bàyyi ko fi lekk posen ba ak ndox a ngoog te lu xaraam lu xaraam tooke la lu xaraam posen la buy rey diine lu dagan nag saafara la su su néewee waaye su ëppee nag jariñ soo docteur bi lee ordonnance la garab gi kat dell jël ñaari doom su jël ñaari ngoon ngo ñaari doom ngoon nga jël fukki doom suba jël fukki doom ngoon suba nag yaa ngi lor sa bopp lu dagan kon néewal ga njariñ la waaye bari ga lor la kon bu dee lu dagan bareel ga ca la lor nekk waaye jëmmi naw ba moom amul lor moo tax salaasa newoon na rubba saiman xadduhu min siyaamihi aljuu wal atash bari na aji woor jot lay ci lam lam ame ca pay ca koor ga lam ci jële daal weesuul xiif ku mar rek moo tax suñu tubaab di wax ne summa siyaamu fantabi lam lam yanxasir fi adamil akli faqad laa taxtari is rubba saiman maal jamaa lay sula fii sa yoon ma jaa nee na koor yëmul rek ci bàyyi lekk bàyyi naan ndax bari na ko woor bàyyi lekk bàyyi naan waaye nag du ca jële lu dul xiif baag marwa rek borom xam nga ni ñu ko firee wut nañ manaa koor gi nga xam ne mooy tax doo ci jël lu dul xiif ak mar ñii nee nañ mooy ki war ba ngoon dogelu xaraam kooka kooram xiif ak mar dong la ca jële am ñu ne déedéet mooy ki nga xam ne bàyyi na lekk ak naan ci bëccëg bi mooy woor na waaye jant so mu dog nag ci deri nit ñi doge tàmbalee jëw te jëw dafa xaraam nee na kooka eh, koor ga xiif ak rek la ci jële am ñu ne déedéet koor gay jur eh, jële xiif ak rek mooy ki woor waaye sàmmul ay cëram nag woor nag waaye ay cëram lu ko neex def boyal na leen ci lu ko sopp day mel ne bu mujj boobu ne mooy dëppoo xalaatu Sëriñ Tuubaa moom am njàngaleem na wana fa sawmu ay yasuumu kullu udwi an kulli ma yudifatan li sahwi amsik an nadari lil xaraami wal mashi wa sami mal kalaami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an ak leen mushir bin ulima nee na woor daal mooy sa cër yépp dañuy woor ci lépp lu amul njariñ ci luy jural nit ki njuumte kon na téye say bët ci xollu xaraam téye say tànk ci dox jëm ci lu xaraam téye say nopp ci déglu xaraam téye say làmmiñ ci wax lu xaraam ba ci say xalaat sax na nga ko tënk ba ci bu ci xalaat lu suufe mbaa lu doye di loo xam ne mbirum àdduna ka dong dong dong lay def juróomeel mooy mu néewal aw aw ñamam ñam wu dagan mu néewal ko waxtu dog feesal diiram dell dell dell dell day mujj koor ga dootu dootu dootu ko am na njariñ ndax koor la ko tax a jóg mooy mooy mooy mooy mooy not not noonu bi yàlla bi ndam ay bànneexam su fekkee ndikkeen dafa dafa dog fas yéene la ko rawoon ci ndékki mu dabaatal ko la ko rawoon ci añ mu dabaatal ko boole ko lim nar a reere su boobaa nag mën naa am xëy na lam waroon a jariñu gi njariñ la doo ci doo ci jot ci maanaam moomu la Sëñ Tuubaa di wax ne wala tukathir suhuura wal futuur moom teelaal ne fa tuxramal ujur bul baril saw ñam ci waxtu xëdd waxtu ndog feesal dell sa biir nee képp ko feesal biiram aku ñam baril ak naanam baril ay nelawam ci koor mook bàyyi ma yee ca mbedd ma ñooyam képp te yiwu baree bare bari faat na ko nee am na ci ñooñ wa baadoom yakulu aklal baqari waxtu futur waxta saxri ne ndaw ku ndaay bu ñu dog dañuy mel ni aw nag aw nag ku ne xam ne na muy lekk na muy naane nee bu ñu dog dañuy mel ni aw nag rek ba ñu xëdd ba biiram gis gann xolam daal di soxla woon ak leneen lu jaam yàlla la ca nekk mooy nelaw rek bu dee muy wootee ne daa waroon te fekk lu toll ni fatir sax topp ko ca koor ga yàlla na ci yàlla musal nga xam ne kon jublu gu war daal mooy xiif damm bànneex néewal euh, man a dëgëral dëgëral bakkan ci ragal yàlla kon dana <coughs> dana day aaju kon lam daa lekk guddi su waree lam daa lekk guddi na ca yam lam lam baaxoo lekk guddi rek lam baaxoo rek moo yem ca bañ caa doon leen waaye dangay ngay gis ne nit ñi li ñuy lekk ci koor mooy ëpp la ñu lekk ba ñu wóoragut loolu doy waar la xam nga koor bu ñëwee dépense daa war a wàññi ko waaye bu ñëwee dépense da yokk loolu dootoo xam kon lu muy niru la ko taxoon jóg léegi day day day sànku bañ a bari ay nelawam itam ci bëccëg bi dafa war a yëg xiif war a yëg mar war a yëg itam néew kàttan ci loolu la ab xolam di selle saxal ci guddi gi nekk nag ndax mooy tax mu am woyof ak guddi gi nekk mën a mën a def itam eh, ay nawaafilam tahajjud ak yàlla waraatam mu am woy fu mën ko de waaye su diisee gan na nelaw dong lay man dootu mën leen subaa kooku ku ñu yiir la ku fe ku wéetal biiram xiif na doy na rek du doy ci mën koo yëkkatal xijaab yi diggam boromam lu may dafa wéetal himmaam yitteem ci yàlla rek nga xam ne itam ci yàlla rek la koy jëme loolu ci fi mbir mépp nekk nag waaye néewal aw ñam ba ko juróom-benneel ci tax e, sawmul xusuus mën a am njariñ mën a mat mooy ab xolam nag bu dogee na ko aj ci diggante xaw fa ak rajaa ndax xamul ba xam xoor koor gi lu ñuy nangul am ndéet suñ ko nangoom mbokk ci muxarrabuuna yi su ko nangoon bokk ci ma mam xuutiin yi mujjug jaam yàlla gu nekk noonu la ci jaam war a mel rafet njot ci ne dañu ko nangu waaye ragal ci ne duñ ko nangu alxasanul basri yi dafa mas a romb aw nit ñuy xàqtaay ak ree mu ne sumba aso jalla day dafa def sawru ramadan mu nekk lu mu dencal ay bindeefam ñu di ci njëkkante ci topp ko aw nit jiitu dal di texe aw nit des gannaaw dal dal di sooy mu ne ko nag danaa yéemu lool ci kiy xàqataay ak ree ak a fo ci bis boo xam ne ña jiitu ca lañ texee ña des gannaaw ca lañ ca lañu sooye ane wallaahi su fekkoon muri nañ kiiraay li bañ jàkkaarloog la la la la fa ne lastaxalal muxsinu bi ixsaanihi wal musiu bi isaatihi mooy mbégtem kañu nangul dana ko soxlaal loo dana ko soxlaal wëlif muy fo waaye pertu kañu delloo ay jëfam nag dana ko doy sëkk ba mëddal ko buntu bu reex ba du tala ba ñu axnaf itam axnaf nu xays mu ne dafa am dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko wax ne ko yow kan mag nga fi ne mag nga sa yaram at na tut koor day néewal doole mu ne inni aidduhu li safarin tawil wa sabru ala taatillahi subhanahu ahwanu min asabri alaata bi loolu gisin wu xóot xóot la bu kawe daal man ka dama koy waajale tukki boo xam ne tukki bu gudd a gudd la te muñ jaamu yàlla gi moo gën a yomb muñ muñ mbugalum suñ borom loolu jis gis bu kawe kawe kawe kon ñi ngi jaaxal ndax tom boobu sax daal ko moo ëpp ci waxtaan wi eh, te jotuta xaaj sax nag muy muy muy muy koor lim lamb ci asraar ak ak ak ak ak jotu taxaaj waaye na ko ne xam na ne bis bii ni ñu ko waxee ci njëlbeen Cheikh mu taxa da ko yittee lool da ci yebal ay ndaw sëñ Mahamadou Xabaan mi ngi nii toog ci sunu wet war a jot sëriñ bi jëm ci mbooloo mi kon damay tëje rek lenn ci njariñ yi nga xam ne koor am na ko jeexale ko waxtaan wi ñu xam ne koor la ca ne ci njariñ mënee su ko wax lépp ci benn jotaay waaye daal ñu xam dafay laabal xol ci ay tër dafay tëskiya bakkan da koy sellal ci mboolem tër yi dafay yar ruuxu dafa koy sellal ci lépp loo xam ne ak lépp loo xam mën naa saafara aw maram ci ay duruus muhimma ci weer wii di weeru koor ak woor ko du ñu xamal ne itam weer weer weeru la màgg barkeel woo xam ne weeru woor la weeru taxaw guddi la weeru jàng alxuraan la weeru gore ci sawara la weeru njëggal la weeru sarxe la weeru jëf lu baax la rafetal weer la wu ñuy ubbi mboolem bunti ajjana yi di ci ful mboolem jëf yu rafet yi di ci jéggale mboolem rëcc rëcc yi weer la wu ñuy nangoo ñaan yi di ci yëkkati daraja yi di ci jéggale ñaawteef yi weer la wax sunu Boroom ci gën a yaatal ak tabam subhanahu wa taala ci ay tiraangaam ci ay jaamam ci xeeti tiraanga yu bari bari da ci dolli ay ay ay mayam ci ay awliya um dafa làmboo ay xeekam yu màgg boo nga laabal xol sellal ko ci jikko yu ñaaw ni ki bon des gannaaw yàq tayel nay di ko tàmmal jikko yu tedd ni ki muñ lawet tab ak tiraanga jixaar ak bakkan ci lépp luy gërëm yàlla di ko di ko jegal eh, bokk nañu njariñ itam dafay xamal bakkan bi dafay xamal jaam bi boppam mu xam boppam xam ay aajom xam ak lottam xam ak aajaw boromam di ko fàttali ne itam xéewalu màggu xéewalu yàlla ci moom saa bu yëgee xiif yéeg na mi ngi doon wëlbati wëlbatiku ci ay xéewal at mi lépp wenn weer képp ñu tegg ko ca xiif loo ko ca dana xam ne kon dana dana ca xamee xéewalu yàlla nu mu yaatoo ci moom su ko defee nag war na ci aji ji kon mu sàmmante lépp ci la la jaar ci nu sàmmanteek moom ndax salaa sa nee na képp ku bàyyiwul jëf ne wax neen yàlla am soxla ci koram koor nag kon tahdib la du tahdib dama ko far di wax koor du tahdib waaye tahdib la maa du mbugal waaye yar la waaye soxtoo fekkoon amul benn njariñ bu ca laqatu it amul benn benn wàññi ko bu ci nekk ndax wàññi ko mi ngi bàyyi ko ci su tasarrufi saa yi mi ñaawu jëfinu aji war ji rek ak ñàkk a wéeru xolam kon lu néew la lu tukkee ci lu bari yàlla na suñu borom boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal ci yàlla na yàlla fegal lori lépp ak ñépp te fegal lépp ak ñépp ci sunu lor li gën ci nun yàlla sunu moon defal dëppaleeku li nu gënal te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangul sunu taalibe wa rahmatullahi taala salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf euh, sëriñ Maam Mor Mbakke xam sa diine ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne indi na ko muy asawmu ramadaan ahkaamun wa asaar ni mu ko waxee indi na ci ay tomb yu yaatu xam naa ne tomb bu mujj bi waxtu yi moo ñu mayut mu yaatal ci waaye li gën a am solo rek ci tomb biñ ko joxoon indi na ko ndax indil nañu farata yeeg sunna yeeg kañ la koor di war ak ñim war ak li koy yàqak ak euh, yiñ ci mayeeg yiñ ci sib ak ay ngëneelam ak ak lenn ci ay mbóotam ak lenn ci njariñu koor li nga xam ne mujj na ko kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan suñu borom mu euh, gën laa dëgëral sa xam-xam ak gudd ko ak wér niñ ko waxe woon léegi ci tàmbali bi euh, ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy tàmbali liggéey bi dafay yabal ay ndawam yabal na fi Cheikh Mouhamadou Xabbaan Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Faadal mi nga xam ne moom la dénk lépp lu aju ci njàngum alquran fii ci dëkk bi wala njàngum alquran ako njàngaleem ci yoonu murit moo ko fi teewal boole ko ak doomam ñu ànd ak doomam sëriñ Cheikh Khadim Mbacke moom Cheikh Muntaxa ak sëriñ Abdul Xaadir Buso ñu teewal fi sëriñ bi Cheikh Mamadul Muntaxa waaye xam ngeen ne tamit jataay bi naka jekk Cheikh Mamadul Moustapha mu euh, mu sëriñ ma mu sëriñ Masamba euh, yàgg na koo ubbi yàgg na koo tëj di di doon koo xam ne jataay bi ñoroon na ko lool kilifa gu mag moom tamit e, naka jekk saa su jataay bi accès jataay bu njëkk bi e, ki nga xam ne moo ko mooy ab e, moo moo mag ci njabootam di ab xalifaam di sëriñ Ahmadou Mbakke teew na fi ànd ak ay rakkam mën nañ cee ràññee sëriñ Abdou Rassaq sëriñ Fadilu Mbakke sëriñ Xaasim ak sëriñ Basiiru Mbakke ak sëriñ Alhaaji Fall ak sëriñ Fadilu Sarr waaye tamit sëriñ Mamor Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal kenn ku nekk xam ko moom it ci jataay bi sëriñ bi di Cheikh Mamadou Mountakha yàgg ko fee yabal ñoom ñaar ñooñu ñëpp muy Cheikh Moustapha Massamba ak sëriñ Mamor sëriñ Mamor mu Cheikh Amadou Fadal ñu ngi leen di ñaanal suñu borom euh, dolli seen i leer dolli seen i yërmande barakati xadim rasul moom it euh, ki ko fi nekkal di ab taawam di Cheikh Moustapha Mbacke teew na fi ànd ak ay rakkam moom it ngir euh, ak sëriñ Modou Xaban ànd na ak sëriñ Seexuna Mbàkke sëriñ Abdul Karim sëriñ Fadilu Mbàkke ak sëriñ fallu Diouf kon su ko defee dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek jébbal kàddu gi Cheikh Mouhamadul Xaban Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Faadal mi fi teewal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yëkkati ay kàddu kon sëriñ bismillah Euh, sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki murit yi ñoo ngi leen di siyaara di leen siyaara siyaara bi gën a kawe bu bàyyi koo ca Cheikh Mouhamadul Mountakha bu bàyyi koo ca Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal Seexul Xadim mi fi nekkal Seexul Xadim yàlla na ko fi sunu borom yàggal te wéral ko ak mu àggale naalam naala yi kilifaam yi ba mu àggale naali kilifaam yi. ba tàmbali naalam. ba tàmbali ay naalam. ba àggale ay naalam. ba àggale ay naalam. bi ñu ñëw nag. bi ñu ñëw nag. daf ñoo boole ak Serigne Cheikh moomam. ñoo boole ak Serigne Cheikh moomam. ak Serigne Moustapha moom Serigne Mamor moom Serigne Fallou. ak sëñ Ahmadou moom Serigne Moustapha Massamba. nee na daanaka bu ñu doon lim ñi ñu àndal day doon ab lim bu yaatoo yaatu. sëñ ko ci jotaay ci kàddu lay doon waaye sëriñ bi moom wootu ko ci ab jotaay ci kàddu lay doon waaye jëmm ji moom mi ngi fi. mi ngi leen di sant bu baax a baax. di leen sargal ci doxin wii. nee na doxin wi am na ci ay cant yu yaatoo yaatu. yoo xam ne daf koy teg ci loxol sëriñ Afiya Buso ak ñi mu àndal di muxaddamatul xidma ndax ci biir liggéey bii day liggéey yu ab yu bari njariñ bi ci njëkk mooy fàttali gi ñu lay fàttali sa diine ak ni nga war a jaamoo yàlla di la gàggante ci yu baree bari di ca toppaat leele gi ñuy def loolu it ñu xam ne murit yàgg na koo def waaye wii doxin dafa dimbali ñu baree bari ku ne da nga daan yor rek def ci sa poos daje kenn jox ko li nga tollool daje wala mu fekk la sa kër nga berndeel ko waaye yaatal gii nag ci biir jumaa ji mu far daj mu defar dem ba daj at jumaay àdduna bépp léegi nii tey boo demoon France mbaa nga dem Italie mbaa fu mu mën a doon doxin wi wenn rek la muy leele gi togg ay bernde ak waxtaan ci sëriñ bi ak waxtaan ci lislaam te mooy waxtaan ci sëriñ bi rek sëriñ bi nag ne kon gis na ne kon fan lee muy tabax tey jii muy eh, université bee nga xam ne dañ ci wute xam-xam dafa mel ne fii day tàggat ña fa war a jëm ñu war a am dal akuk déglu ndax jumaa ku ne xam na ne boo nekkee ci biir war mooy jumaa moo tax nga xar xam na ngay toogee sëriñ bi kon nee na mi ngi leen di leeral ni mi ngi ànd ak mbégte ci jàppale gi ñu koy jàppale ci loolu yi ndax melokaan yii ñu mel buñ meloon neneen itam mu doon ab coono ci moom waaye dana doon lu baree bari lu muy yëkkati su ko bëggee yëkkati jëme ci noonu rek fekk na ñoo ngi ca loola nga xam ne ak cant rek la ciy def ci gàmmu yeeg taxawaayu ajjuma yeeg setal penc meeg setal biir jumaa jeeg ak yeneen yi ci aju yépp kon nag daayira muxaddamatul xidma nekkatul daayira ci biir jumaa ji rek daayira bi àdduna bépp la te li mu ñu ci bi ñuy dem màkka te mu leen doon gunge si fii ci ndigalul sëriñ bi ci biir jumaa ji yéen seeni nawle mooy ña ca madinatul munawwara ak ña ca màkkatal mukarrama di seddal barab boobee te ñooñee nag ñoom dafa am fu ñuy jëlee li ñuy setale ñu leen di fay ñun nag payit sëriñ bi rek lañ ci jublu kon nag sëriñ baa ngi ñuy kañ bu baax a baax di leen jukkal bu baax a baax te xam ne kii ñu nekkal muy Seexul Xadiim di yëngu ci wetam nañu xam ne lépp lu ñu war a jóg di ko wuti rek loola mooy jóg jëm si ci noonu ñii ñëw ci barab bi itam sëriñ baa ngi leen sant bu baax muy tuut tànk yi mag ñi ñii ñëw di taatan ci xam-xam day barab boo xam ne nekk moo tax. ki fi nekk moo tax. waaye sëriñ bi wax na ni. waaye sëriñ bi wax na ni. yëg na ne jox nañ ko àqam ba mat sëkk. ndax lu jumaa ji fees fees. doo dégg benn yëngatu. kii def waxtaan wi. kii def waxtaan wi. fii ak muy noppi. loolu rek mooy seen yitte. te loolu sëriñ bi wax na ne. ba tey mi ngi bàyyi koo waat ci muxaddamatul xidma. ndax bu ñu woote woon. ñu wuy si leen. fekk fi ay yëngu. ak ñàkk dal. noona rek la ñuy doxee. yi fi amoon ci gannaaw. yi fi amoon ci gannaaw. muy wéradi googee. sëñ bi wax na ne. sëñ bi wax na ne. sàmm nañ ko sàmmin woo xam ne. sàmm nañ ko sàmmin woo xam ne. léegi am njàngale la ci ñëpp. ba léegi am njàngale ñëpp. mi ngi ñaan suñu borom. ci barke Seexul Xadim. suñu borom teg ñu loxo. te defal ñu tawfiix bi yaatu. defal ñu ay xéewal. gu ak mucc. ak tawfiix li mu waxoon ne nañ ko wax dañoo tuuti ci wax ko waaye danañ ci feeñal suñu yéene rek waaye la ca am solo mooy fa mu nekk muy ci kër Seexul Xadim gii mi ngi dégg li ñuy waxtaan di ko rafetlu loolu rek doy na sëkk dem ba sa kilifa doy loola ci kilifaam ngay dend ak moom loola màndarga la moo xam ne màndargam aajo ju faju la sëriñ bi nag ma ngay sant waa kër sëriñ Moustapha Massamba di ko teg ci loxoy sëñ Ahmadou mi nekk xalifa bi eh, ndax diirub lii ba mu tàmbalee ba léegi ba Seex Moustapha di taxawu lii di ànd ak suñu kilifa sëriñ Mamor yàlla na ko yàlla yokk ay leer gis nañ ne day yokk waaye wàññiku tax na ba yoon wépp topp leen ci loola sëriñ Moustapha itam ni sëriñ Mamor meloon di sunu kilifa te matale woon lii nga xam ne lii ñu ngi woon ci gannaawam waxtu wu itam dañuy roy ca moom waaye duñ ko mën a dab waaye yàlla na ko bàyyam wallu ci ay teraanga ak i tawféex ñoom ñii itam di sëriñ Ahmadou ak sëriñ Moustapha suñu borom teg leen loxo ak seen i rak ndax ñu neex a àndal lañu ne seen waajur yi meloon bi ngeen dikkee lépp da ngeen ñu ko yenoon kaddu yi dañ ne woon dana gën a bari sax waaye itam waxtaankat yi itam tàmbalee ci sëñ Mamoor ak sëñ naa ñoom ba ci ñi ko nar a tàmbalee ci bis bu njëkk bi ba ci bis bu mujj ba sëriñ baa ngi leen di ñaanal mucc ak tawféex ba li ñu yéene ci ci liggéey bi ci biir koor gi suñ borom defal leen ci lu kawe njort sëriñ bi itam mi ngi wax ne nañu yóbbaale itam ci njàngum alxuraan mi ndax koor gi mooy weeru alxuraan naka jekk daaray kaamil da daan am waaye dañoo bëgg nag ci weeru koor gi ñu gën cee farlu ci wàcce ay kaamil te ñaan ci xew yëpp suñ borom def ci jàmm def fi tawféex def fi ak jàpp jàppandal defuk juboo ci mbooloo mi ak ci xeet bi yëpp ñi si biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp ndax fii kat day barab boo xam ne. de su fi delloo ñaan. kon nag saa yu nekk rek balaa waxtaan wi tàmbali lu ñu mën ci wàccee kaamil rek ñu def ko waxtaan waxtaan wi door a tàmbali ñun ñii di waa muxaddamatul xidma nag dañuy sàkku ci nun ñu ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñ borom dëgëral taxawaayam wéral ko musal ko bu baax a baax ndax kat lépp lu sëriñ bi bëgg. loolee ma ngi cay soññee bu baax a baax. loolee ma ngi cay soññee bu baax a baax. lu ci nekk ne. bu yónni woon ndaw itam. bu yónni woon ndaw itam. mu doy sëkk. waaye lépp loo gis mu ci dox. waaye lépp loo gis mu di ci dox. boppam a ko ca doy. te lépp bëgg sëñ Tuubaa rek. kon nag nañ ko ñaanal ak man ak tawféex. mboolem kilifa yëpp nag ñëw nañ ci bés bi. kër yëpp a teew fii. kër yëpp a fi teew. kon nag su ma limee ñi ma lim rek boo dee lim doo mën boo dee lim day def ne boo dee lim doo mën a àggal moo tax. waaye nañu xam ne yoon wépp fi ne sa njaboot a ngi kenn ku ne sa njaboot a te lii nag mooy lislaam. lii mooy yoon murid. yàlla nañ ko teew ay déwén yu bari. te mbusoo bi te mbusoo bi suñu borom jox ñu li gën a woo asalaamaaleykum wa rahmatullah ngërëmul suñ tubaab amin amin ci ñaan yi jërëjëf barakallahu fika yàlla nañu ko yàgg teewee te sunu borom yàggal fi sunu kilifa gi Cheikh Mahamadul Muntaxa mu yàgg fi te kon mbokk yi ñu fàttali leen ne e, incha allah waxtaan yi day woy suba ak jàmm incha allah ñu ngi war a waxtaanee àq ak warteef yi nga xam ne moo war citoyen bi ci ab réewam e, Serigne Fadilou buso Hassan moo koy def ñu fàttali mbokk yi tamit ñi nga xam ne ñooy teew fii ak ñi ñuy topp. ci biir réew mi ak bitim réew képp ku am laajub diine boo war a yónnee mën nga ko yónnee ci 77 678 57 66 wala nga yónnee ko ci 77 585 17 55 boo ko ci yónnee dañu la tontu ci laaj yi bépp boo fi yónnee ñu ngi leen di jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh